L'air du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Euh, ñu ngi ñëwaat ci l'ami des femmes indil jigéen ñi nag boo xamante ne xassa pour jigéen ñi la góor gu ci bëgg jëriñu tamit. mën na cee jëriñu muy lu jëm ci wàllu médecine ak wàllu nan la doxalee dafa am benn plant boo xam ni cepp la koy woowe cepp plante la boo xam ne dafa am xet xet bu neex ñu koy faral di def ci ndaa yi mooy ndaalu ban yi mag ñi daan defar te nga xam ne buñ ko defaree xandeer ba pare dañuy bañ ndox mi jël xet ndax bu ñu rootoon ci ndaa yi ba pare léeg-léeg mën na def ay fan ndox moomu nag dañ ci daan def ceeb ceeb dafa am xet bu exclusive boo xam ni xet boobu dana tax ndox mi dana neex dafa am njëriñ yu bari ay vertu yu nekk ci loolu nga xamante ni moom mooy ceeb ceeb dina raxas biir ceeb dina dindi xet waaye dina dindi xetu partie intime mu jigéen beneen bi nit ki su koy bari di jël dana tax biiram dana ko raxas ba mu set ndox mi muy tuur dana ko segg ñetteel bi bokk na ci cepp baax na ci suukar buy yéeg muy glycémie cepp baax na ci kon yow jigéen maa ngi lay jox benn rëmet boo xam ni bu baax la lool ci yow soxna fi mooy da ut cepp ut xobu laurier ut goowe ut siddéem <coughs> loolu pour lan la yi may wax nii dafay jëm ci jigéen boo xam ne day santir xet ci partie intime walla ci poqataanam maanaam bërëbam yu ruqe yooyu su fekkee ne loolu dafay dal jigéen dafay jël juróom-ñaari takku cepp su jëlee juróom-ñaari takku cepp yi mu teg ko daa di jël laurier laurier bi def ciy ut fukki xob yu mat ak ñett fukki xob yu mat yu mat maanaam yu ndawul lool goowe bi mu ut ci fukki doom ak ñett siddéem bi mu ut ci ñaar fukki xob ak benn wala mu am puudar su ko defee mu jël laurier boobu ak goowe bi ak xobi siddéem yi raxas leen ba ñu set mu daldi koy togg ci ñaari liitaru ndox na ko bàyyi mu bax bax ba baxaat su baxee bu baax ba baxaat mu fay gaz bi jël juróom-ñaari takku cepp yi dugal ko ci ub ko su ko ubbee loolu mu ciy naan kaasu attaaya à la koy naan nag balaa muy lekk dara bu xëyee mu naan ko suy tëdd mu naan kaasu attaaya mu jël benn xaaj bi te mooy benn litre bi loolu mu koy raxasee parti intime maanaam bu duggee ci toilette raxasoo saabu ba set wecc jël loolu raxasee ko kanamam loolu baax na ci dindi xeetu partie intime jigéen moo xam poqataan yi walla kanamam su ko defee mu daal di jël huile tulukuna tulukuna benn diw la bu weex boo xam ne day am ci côté sud bi loolu su ko jëlee ut huile d'olive tulukuna bi daf ci ut kudd bu ndaw mu une cuillère à café huile bi mu ut ci cuillère à supp su paree mu daal di ut diw riic xam naa nag ñi may wax xaw ma yàlla na ñu xam diw riic wala déet diw riic boobu bu ko amee mu daal ci ut lu tolloog cinquante gramme mélanger leen su leen mélanger ba pare jaxase ko ba mu baax mu daldi ut puudaru xobu siddéem xobu siddéem bi da koy weer ba mu waw dëbb ko puudar boobu mu daldi di ciy jël kudd bu ñuy añee ba mu raser muy une cuillère à ba mu raser mu mélanger ko ak tulukunaa bi ak huile d'olive bi ak diwrij bi su leen mélangé ba mu baax nag daa di koy def ci butéelam saa bu yeewoo suba teel sangu defaru ba pare mu diw kanamam noonu mën na koy def guddi buy tëdd su yaakaaree ni borom këram du ko soxla walla du soxla borom këram mu def ko loolu mu sàmm ko su koy def incha allah yoon yu bari day dem ba dootul sentir benn odeur yal na yàlla defal ñu jàmm defal ko jàmm defal ko mbooleem jigéen ñi incha allah